ndogalee loolu nag Karim di sama ab lay Wade di sama baay may sa Coro Sarr maane Coro Sarr ndikku Coro Sarr ba Coro Sarr kani mu metti ma nag ma di ko kaas keroog ba nga xamante ne bii nag set na wecc ma tëdd nelaw ba yàndoor keroog naa laa xam ne. kañ na set wecc d'après yow. keroog bi ñu nee il est électeur et éligible man ku ma sa ñëw nee naa la quand est-ce qu'il sera électeur et éligible maintenant il électeur et éligible bindu na point e lay watee joxe na caution ñu ngi pare suñu parrainage di xaar suñu retour gan kon kañ alhamdulilah rabbil donc dara metteetu la. de rentrer dans l'ordre ah ci liñ def Karim ak hmm. Ablaye Wade. Hmm. wax dëgg yàlla électeur laa bëggoon mu doon retrouver sa liberté yàlla defal nañu ko ci doole sëñ